waaw waaw mu ngi noonu mbokk internet yi suñu xalaat TV ngi leen di ziar di day nekk samedi 27 avril 2027 fii ci stade arène nationale journée Mouniang production grand combat bi ci diggante Sokh 2 bu Jaxaay ak Mengu Mboro waaye yéen premier combat ci biir géew bi di dox ci diggante Bébé Walfu ak Sirou bu Bawal voilà Sirou Bébé Walfu ma yëgiti loxo yi ne ay supporteram jug leen ay laay la moo ngi moo ngi lu xonq li moom Bébé Walfu Bébé Walf premier combat moo nekk ni ci biir géew bi Sirou sànni na léegi benn goos Sirou Bébé Walf attention Bébé Walf dóoram a fayu jëli na ko attention Sirou Sirou ba génn ci Sirou na ba génn ci ku ci nekk jàpp nga sa morom diggante Bébé Walf ak Sirou ñoom ñaar ñu ngi noonu ci biir géew bi jàppante nañ rofote na diggante Bébé Walf ak Sirou attention attention Sirou ma koy dóor pour Walf sigi Bébé Walf ak Sirou attention attention Bébé Walf ak Sirou Bébé Walfa ngay sigil attention attention jeexagul laa ilaaha illallaah xale yaa ngay bare xale yaa ngay bëre ñi ngay xeex diggante siru siru dóor na pour Bébé Walfa sigi jàppante ne ñoom ñaar arbitre bi am na wax ak ñoom waa kafe gi ci la bokk mi ngi noonu Bébé Walf ak Sirou attention dem nañ ko suuf waaye jël amagut ñaari xale yaa ngi bëre Sirou da ko fàqal léegi mu rëbb def trois appi ñoom ñaar jàppante nañ roofante nañ diggante Sirou bu Bawal ak bébé walfu attention ñoom ñaar ñu ngi bëre diggante Sirou ak bébé walfu attention Sirou lu mu bëgg a def bébé walfu laay laay la la xale yi dañoo tolloog doole siru lu mbëgg laa ilaaha illallaah Bébé Wolf daan na ko oh Bébé Wolf daan na ko laa ilaaha illallaah daan na ko amul benn wérante waaw waaw waaw waaw waaw waaw boo daanee jubilé ku daan da yaa daan am nga période droit jubilé boo daanee da ngay laa ilaaha illallaah xale baa ngi noonu. bëri na bëri bi daan na bëri na combat mu neex waaw waaw nañu xeex nañu laa ilaaha illallah bébé walfu bébé walfu ngi noonu waaw waaw waaw waaw day tubu suuf pour cey mbëri laa ilaaha illallah mi ngi noonu moom bébé walfu moo daan siru premier combat bi mbër noo bëree tey waaye gis nga conseil rek di sant seen waa écurie waa Géejawaay mbooloo waa Pout gi ma jóge waa Géejawaay Marsan waa Bawol booy bitigu mbaay maa leen sant bu baax a baax di sant waa maa ngi sant waa Pout bu baax di sant waa Tuguni waaw war na yàlla kii bu ma dóor ko mu wàcc mais père doore suñu entraîneur na ma teel xeexloo wu ma la xeex bu ma xëy ne xam naa bu ma demee dina ma si duma bëre la ma sant bëre laa def daan xoolal mbooloo ma àndal. mooy loolu waaw. ah maa ngi sant nag waa Géejawaay bu baax waa Marsam sama waa Gàlle maire wan noom Ablaye xam naa ñu ngi may seetaan waa Pout noom Baye Fall ñëpp ak waa Bawol waa Bidigou Mbaye tey du ma tudd tur mais ñëpp maa ngi leen